Mbacke sëñ bu Mbacke ñu ngi ñu ngi ziar bu baax a baax. soxna Fatim Ndiaye laa tudd euh, nekk euh, jëwriñu Kënsul Muxtadin Touba Pamecas tey nag dañu indi woon euh, barkeelu ci ci liggéey bi ndax tamit daayira bi moom liggéey sëñ bi rek ndigal rek lañuy xaar saa yu ñu déggee ndigal rek jóg nañu. tey jii ma àndoon ko ak sëñ Alioune Dieye mi nga xamee moo nekk fii ci Touba moo yore agence Touba bi yëpp ak sëñ Samb. ak euh, sëñ Diagne bi nga xam ne moom moo féete féete Jurbel donc ñëwoon tey jii doon jébbal liggéey bi liggéey bi nag euh, daayira bi yëpp a ko bokk ñu bëggoon nag nga ñaanal ñu ñaanal ñu tamit euh, ci bërëb bii nga xamante si lañ nekk di liggéey muy PAMECAS euh, lu suñu borom jëmale ko si kanam ñu jëm ci kanam ñun ñëpp ndax tamit euh, loolu mooy tax ñu mën a am loo xam ne dinañ ko ñëw indi ko fii di ci barkeelu ci ci liggéey bi te di di ñaan rek suñu borom baaxee ñu ñu ànd ko ñun ñëpp di ko defee ay ati ati ati si kanam te liñ siy def yëpp di ñaan mu barkeel ndax barkeel rek moo am solo jërëjëf sëñ bi jërëjëf Mbàkke ci turu Serigne Abibou mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ak turu Serigne Abdou Fatah Gueye mi nga xam ne mooy président Touba ci kanam di sant bu baax a baax ci ginnaaw bi ñu wootee liggéey bi ngeen wuy si loolu moom day yëg ni ngeen Sëñ Touba ndax bi ñuy annoncé tudd ñu leen waaye da ngeen xam ne ci biir yëf yi ngeen bokk ngeen dikk liggéey bi nag day mbir moo xam ne lu fi waaye indi ak nu mu mën a dinañ ko ko defal ci liggéey bi di leen sant di leen gërëm di ñaan tamit bu ngeen delloo euh, lim bi ngeen indi moom kawe na suñ jor lool lim bi lu mu bari ak lu mu néew néew liñ ci gën a ñor mooy ñëw gi ngeen ñëw te sëñ Touba tax wuy si gi waaye nag Touba ci kanam dafay mbir moo xam ne continuellement la suñu ñaat téeméer yi ñuy laaj par weer bu ñu sañoon bu ngeen yeggee ngeen jéem a organiser seen biir ba képp koo xam ni euh, agent la ci euh, PAMECAS bu 1000 francs bu weer jotee mën a contribuer 1000 francs loolu moom ñoo ngi leen koy ñaan di ñaan sëñ tubaa barkeel seenub liggéey sëñ Touba nag ku ko liggéeyal la. ndax sëñ Tuubaa moom bëgg gi mu gënoon a bëgg mooy dëkkam bi buy wax nag misal maxaat ni day mel ni turandoom wa ci àjjana du caagin ay jinneef fii def wala malaaka ñun ñu ñooy takkatoo rek nii ba fexe lam bëgg ñu def ko kon ñoo ngi ñaan ci dara sëñ Tuubaa mi ngeen tax ngeen ñëw fi yàlla na fecc seeni ajo jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax jërëjëf sëñ